c'est ça la réalité réalité de xew ci réew présidentiel. mooy problème diw dina dem diw du dem Ousmane Sonko dina dem du dem. te moom mu ànd ak Amadou Ba. non mais dinaa ñëw ci Amadou Ba. bi mhm. après mais le cas de Ousmane Sonko depuis une élection présidentielle Sénégal mel dañ koo def quatre vingt dix ou quatre vingt quinze pour cent yi jox Ousmane Sonko lan mooy problème.

li ma xam mooy. Hmm. si dernière élection lañ jóge hmm. mais cinquante cinquante lañ def effectivement loolu pour l' opposition c' est une victoire. Hmm. mais opposition boolewul si électorat mais léegi. mais c' est une première. waaw moom laa c' est une première moo tax man lu baax la. moo tax yéen ngeen jàppee ko quatre vingt quinze pour cent en réalité c' est ça fait même pas cinquante pour cent. mais léegi mais ci biir loolu lépp benn tour rek la ñuy la ñuy gis mooy figuré toujours. parce que ñëpp képp ku ci wax Sonko ngay défendre ba comment dire je Guy Marius Sagna Sonko lay défendre <laughs> Ahmed Aïdara Sonko lay défendre.

Mortal combat, le Mortal combat, le Mortal non non mais faut le le je vais lay pour quelqu'un qui connaît la puissance de l'état l'État mm-hmm. a décidé. Si vous avez la Si tu vous toute intelligence mais il faut vous jël un peu de recul Vous ne nga wër. Mm-hmm. kenn si. que benn maire il s'appelle te mu nekk PDS. dama la laaj waa anam. déggatuñu ana ana ana ana Barthélemy Dias hmm. ana ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon taxaw. ñoom ñëpp bu ñu toogee si table bi. kenn du wax loo xamante ne day offensé l' état wala nga offensé juge wala nga offensé police wala gendarme. ñoo gis ñoo ko dugal. ñoom ñoo ko ruux dugal ko te gëmuñu ko Ousmane Sonko ñun ñii ñoo nekkoon génération bi ko gëmoon. Hmm. mais nag wax dëgg yàlla ku def loo xamante ne dafa musta am. mais day da ngay da am tour yàlla may na ko li mu koy may comme ni Modou Lo may maye Modou Lo li mu koy may mais na def intelligence dafa waroon def intelligence bi Modou loo di def nii ba di jël roi des mais boo ñëwee def. kon yàlla Ousmane Sonko amoon intelligence. intelligence politique. Hmm. non bu ko amoon jëkk nag président. yaakaar nga mu bokk ci élection yi. bon loolu moom xaw ma si dara wax dëgg yàlla. ah non man dama gëm ne on est dans une république. am ay instance yoo xamante ne ñoom ñooy teg par rapport ak loi bi li mu leen may ak constitution bi li mu leen may je suis un républicain lu ñooñu wax dama jàpp ne dëgg la jusqu'à preuve du contraire je suis pas dans les débats de couloir là ay non dañ koy coincé ko yi man gëwuma loolu xam nga lu ma gëm mm-hmm. justice bi saa yu àttee dina am ku mu daan dina am ku mu jox raison mm-hmm. ki mu jox raison danaan ne moom moo am dëgg ki ñu daan danaan àndu si te pourtant c'est la justice da ngay appliquer li ñu la wax mm-hmm. euh, politique aussi Nous avons les trois pouvoirs qui sont indépendants mm. l'exécutif le législatif et le judiciaire pouvoir judiciaire c'est imparfait mm. mais toujours est-il que l'unité décide mm. on l'applique à la lettre Si tu nga tu es en défense avec la République et la République va se dresser devant toi instant bi li may bëgg a wax mooy. non attends boo <coughs> ci politique lan ne instant bi gars yi Macky Sall jox na bopp Amadou Ba. APR hmm? gars yi ci moom lañ gën a am yaakaar mais daw lax si ci moom rek moom. te moom ci Barthélémy est-ce que ko mairie Dakar tam. naa ne. non non man lu ma diggante si politique. Hmm. mais mais ñëwal sa diggante ak Amadou Ba. Eh, lu tax le choix de Amadou Ba. voilà c'est ça la bonne question mais man du ma laxu si doomu aadama dépassé naa loolu Amadou Ba dafa. nekk nit koo xamante ne ku dal la ku teey la hmm. ku ne xam ne ne Sénégal fi mu toll soxla nañ njiit bu teey de voilà hmm. mu nekk koo xamante ne bi réew mi di jaxasoo dëgg dëgg dëgg tekk la def ñii di saagante ñii di xasante ñii di sànnante moom mun a tekk il a traversé le désert à un moment donné ñu mettre ko au frigo dégg ngeen ko moo lu ñaaw hmm. pourtant ñu bari Macky Sall bi ñu wàccee dañ ko attaqué dem génn Mimi Touré nu mu def Hmm. dafa d' accord ba li mu bëggoon amu ko mu génn di xas kooku. mais mais mi ngi xaaral waaw mooy mooy li ma laaj. kon moom ñun la trahir parce que bu nekkoon trahir ko du génn di wax di wax ne Macky Sall li muy def di yoon kon ñun la yàpp moom sa trahison avec ñu ngi ko seqal c' est pas notre problème. Hmm. ñun qu' est ce qu' elle fait quand les choses l' arrangent ak qu' est ce qu' elle ne fait pas quand les choses ne l' arrangent pas. Hmm. c' est à dire il faut que nit ñi yeewu Mimi Touré quand je la vois mu génn di tiir si président Macky Sall parce que juste que. dañ ko tànnul candidat wala dañ ko deful président assemblée nationale mais c'est son problème à elle mais bu génnee si benn instant parce que dafa lañ ko liñ ko bëgg mu bëgg a taxaw ne moom mooy patriote bi gars yi di ko tàcc mais ça me fait rire ça me fait rire parce que ñun newuñu si gars yi nga xamante ne dañuy ñëw rek bu mu tax bi ñu gisee booy ndeysaan <laughs> booy passé fi jël mi ñëw ni ko doon saaga de jël ko tàcc ko di photo moom <laughs> ma ne ndeysaan lii day mel ni li gars yi naan des moutons de Paris jusqu'à topp si aveuglement mais tant de personnes yo xamantene mais biñ len wàcceelee lé fi ministère wala yoy si lañ opposé wu. kon ñooñu seen intérêt personnel motax tax ñuy opposé wu mais li ñuy wax deugul si ñoom li wax c'est c'est c'est vrai maintenant quand Amadou Ba ñu wàccee ko mu gëm yalla gëm né yalla bima joxone nguur te gëmu gënuma nit ñi teg ma fi moo ma mu tok dans son coin def son chômage andi andiwaat leneen mais kooku au moins xam nañ ne ku gëm yalla la njiit nak dañ ci tànn ko gëm yalla ben deuxième bi moy man mosuma ko dégg mu wax lu ñaaw mosuma hmm. ko gis mu wax lu ñaaw gis na né jàmm la sax ñepp ba sax ñu ko doon jiñ ne day ànd ak Sonko hmm. lolé day woné c'est un homme conciliant hmm. c'est quelqu'un qui sait euh, préserver ses relations avec tout le monde benen bi moy ñu ñëw ci parcours professionnel am ak parcours scolaire am am nga ma nekkul koo xamante dañ ko wutal liggéey dafa def concours ENA nee nañ la plus grande école administrative du Sénégal mu réussir ko nekk fa professeur jàngale comptabilité Nous, ne détawaay mu occuper le euh, toutes les petites directions avant que le directeur général impôt domaine subir biir impôt domaine fi nga xamante ne bokk na si les mamelles bi nga xamante ñoo gérer budget de l'État, état kooku l'État ou état wala amul état ministre de l'économie des finances du et du plan je pense mu jóge fa premier ministre nekk ministre de l'Intérieur, mais kan moo ëpp compétence Amadou Ba bu ñu waxantee dëgg rek sans farfar la kooku am chance nekk candidat ñu bokk nag loo xamante ne dara mun mënu ko dindi Parcelles Assainies bi nga xamante ne dañu ko bëgg hmm. kon kooku bu nekkee dëkk bi jaxasoo na koo fi gis ci candidat yi mës na am ay demee de presse justice bu demee si Khalifa Sall dañ ko jugé ne ko dafa jël un milliard cinq cent Sénégal un milliard un milliard et quelques Sénégal hmm. justice la moo ko teg daal ku justice teg daan mën nga ne kon ne man mais justice moom mooy suñu suñu suñu suñu fondement ñun mhm. dañ jàpp ne jëloon deniers publics yi te mhm. remboursé na kooku kooku war na nekk président Sénégal bu ñu waxantee dëgg kese da nga am problème ci sa bir néegu sëy moo xam <laughs> kattan bu néew la wala manqué man yu wala euh, sax jafé jafé yi euh, gaaw daanu seen gam kattan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu nga di jàkkoonteel ci seen néegu sëy bëgg si gam kàttan boobu dangay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew